G. waaw bu dee mën na ko parce que boo nee njiit la wax dañu waxta ko waxtaanee Sénégal fekk ñaar téeméeri at ak lu topp parce que parcours am ngay wax. waaw si combat am waaw ak ni mu jotee nguur gi. at li mu liggéey. ak li mu liggéey bu liggéeyee daal wàññi wax gi. moo gën si moom. Mhm. looloo tax dégg naa bi may ñëw si oto bi si rajo bi ñu ne euh, fal na ñaar fukki nit ak benn. yu koy xelal ay mais. gisaguma nag. am ñu jàpp ne c'est un gouvernement parallèle. mais nan ñaan yàlla <laughs> ne mu am ci ñooñu ab psychologue. bu ko amul na ko fal muy ñaar fukk ak ñaar bi. psychologue pour lan. da koo soxla. moom Ousmane Sonko. waaw te psychologue yi may dégg xam nañ li tax ma koy wax. Hmm? soxla na ko. qu'est-ce qu'il y a quest qui s'est passé. mooy li ma la wax rek. non dugg ful at at at fu nekk nga wax waxee fa. oui ak les conflits qu'il ouvre de gauche à foofu sax mooy la fa muy uh-huh. ah, loolu mooy fa muy mujjee mais dama ne. mbooloo moomu mu bëgg xam ne bés bu set. dafay mel ni bu doon yow nga nga doon naan katu café boo xëyee naanoo café ni muy mel saw yaram noonu la koy mel. Mhm. ndax université dafa dépendant en fait. def na ko def na ko grand théâtre def na ko beneen bi mooy bu mbooloo amee rek doo ñàkk ma a bañ a wax. mais justement saa yu waxee wax loo xam ne jàpp nañ ne ëpp na euh, su s'est attaqué au président du conseil constitutionnel. il s'est attaqué à la presse il s'est attaqué à l'opposition en parlant même de dossiers yoo xam ne le premier ministre moo am moo censé xam ko te bi muy dem Grand Théâtre il était là en tant que chef de parti mais non loolu nga wax moom la Sénégal yëpp di wax parce que ñun ñaar tey jii li ñuy wax rek moom la Sénégal di wax euh, moo di dafa am loo xam ne dafa am jamono boo ko war a waxee at foo ko war a waxee mm-hmm. beneen bi mooy boo doonee premier ministre da ngay xam ne doo n'importe qui mhm. parce que premier ministre nag boo xoolee bu weesoo président ak président assemblée nationale yaa fi kilifa gi ëpp doole c'est vrai ndax ci doole moom yàlla may na ko euh, mu doon vraiment koo xam ne xale yi bëgg nañ ko réew mi xam nañ ko kon boo amee loolu nag da ngay xam nooy jikko woo mhm. jikko woo bi mooy da ngay sol mbubbu kilifa man dama jàpp ba tey sologul mbubbu kilifa loo tax ma bëgg mu nommé conseiller technique psychologue pour mu soloo ko mbubbu kilifa. Mhm. boo ko méngaleeg joomaay da xool ne joomaay mu ngi góorgóorlu pour mbubbum président bi jot ko.